nuxayikum taxiyat alislaamiya alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu nuyoo ak suñu ziyaar fekk leen ci jàmm ak salaam su ko defee ñu fas yéene rek dellu si waat ak yéen ci sunu jataayu xam-xam bi ñu tuddee Shamsul Bilaad ngeen koy am ci waxtu wi ci seen rajo Rewmi FM 97.5 su ko defee nuyu bu baax ziar mboolem auditeur ak auditrices yi nga xam ni ñu ngi ànd ak ñun di ñu topp ci waxtu wi mu mel ni nag mbokk yi ñëwoon nañu ci njàpp ci lu yaatoo yaatu ak njariñ yi ci nekk ak importance bi mu am dellusiwaatoon ak yéen ci yi nga xam ni mooy yàq njàpp ba su yàlla defee nga jàpp ba ma noppi nga mën koo moytu su ko defee waxoon nañ ci nag lu bare bari ci yooyu nga xam ne dafay yàq njàppali jaar ci ci anam yu bare bare bare bare waxoon layu ci nekk ci ay axdaas muy ay toj ak yoo xam ne asbaabul axdaas la yuy sabab toj su ko defee tey nag ginnaaw ba nga xamee ni jeexal nañu ñeenti xaaj yi ñu waxoon ci laal nga xam ni góor bu laalee jigéen te fekk laal bu mu jublu ci am bànneex njàppam day yàqu su ko laalee jublu woon ca bànneex ca bànneex njàppale day yàqu su ko laalee am ca bànneex te jubluwu ca woon bànneex njàppale day yàqu su ko laalee te jubluwu ca bànneex amu ca bànneex njàppam du yàqu defe naa foofu lañ tegoon suñu baaram tey nag ba léegi mu ni la al ashyaa allati yantaqidu biha al wudu mu ni la yan mooy mbir yi nga xam ne ba tey njàpp mën na ci yàqoo ndax des na mu ne waaw wala yantaqidu lwudu bi massi duburin wala al unsayayni wala bi lamsi wala bi lamsi farji sagirin wala qayin wala bi akli laxmi juzurin wala xijaamatin wala qasdin wala bi qahqahatin fi salaati wala bi massi imraatin farjaha wa qiila in altafat fa alayha alwudu mu ne bokk na ci yi nga xam ne du yàq njàpp mooy nit ki laal ginnaawam maanaam nit ki su laalee ay xottu taatam ngeen baal ñu rek dañuy jàngale parce que bu ñu nee dubur rek wala ñu ne ginnaaw mën nañu jàpp ni digg ginnaaw ngay wax wala yu mel noonu waaye lim mu bëgg daal mooy nit ki xotti taatam yi bu ko laalee ak loxoom yàqul njàppam waaw xam nga waxoon na la boo laalee awra ci sa baaraami ténq yi wala ci biir loxonq yi day yàq sa njàpp waaye awra la bu dee góor mooy zakaraam bu dee jigéen mooy pëyam waaye jigéen sax am na ci charte dinañ ci ñëw ci kanam waaye ala kulli xaal muy góor gi muy jigéen ji koo ci xam ni jël na loxoom laal xottitaatam loolu du yàq njàpp wala unsa yey ni du caageen ñaari àndaale yi unsa yey ni nag bu fekkoonte ni dañu koy firi dañu koy tuddee ñaari àndaale ndax zakkara doomu aadama bu dee góor la moom moo koy am waaw góor bi nga xam ne mooy am zakkara moom mooy am unsayni te mooy ñaari donj yooyu nga xam ni ñu ngi ànd ak zakkara bi nekk ci suuf su ma ko doon misaal ci xar bu doon xar la dama naan mooy xuuri xar kon nag bu dee nit la ah di nga ci dégg li ma bëgg a wax ndax itam il faut ñu wax leen ko mu leer wala bi mas si sa saxiirin du caageen laal pëyu xale bu ndaw du yàq njàpp maanaam tey xale bu jigéen boo xam ne majeuragul xale bu ndaw la nga jël sa loxo laal pëyam yàqul sa njàpp ndax xale la waaye nag la mu la waxoon fële rek am na yoo xam ne moom boo ci jubloo bànneex nag te am ko caag ñàkk ko caam yëpp day yàq sa njàpp waaye ci lim la bëgg a jàngal rek mooy tey yaay ji nga xam ne mu ngi yor doomam doom ji tuur ndox saw yaay ji wëlbatiku jël loxoom wis ko walla moo xam papaam la sax loolu la la wax ne du yàq njàpp waaw walla bi xëy in du caageen waccu wàccu si du yàq njàpp waaw dina yàq nag koor bu fekkente ni am na lu delluwaat waaye du yàq njàpp wala bi ak laxmin juzurin am na ñu koy firee lekk yàpp euh, naaga mooy giléem gu gu góor euh, waaye foofu débat bi bëri na yu ci am ci wàllu tanaazo waaw ah, am na ñu ne daf ko yàq am na ñu di ko yàq waaw wala xijaamatin du caa génn nàmputalu waaw nàmputal defe naa ni ñiy faj xam nañu ko parce que deret bu dee lay doon moo ko xasd nga xam ne mooy firi gàjji moom naar yi ñoo koy gën a def waaye nàmbutal boobu nga xam ne day fekk deret ba bu bu bu nekk ci sa yaram ba yàgg ci ba nar nar indi feebar ñu génne ko wala ñu gàjji ko yooyu yëpp du yàq njàpp wala bi du caageen xaqtaay waaw du yàq njàpp waaw doonte day yàq julli waaye du yàq njàpp mi kii julli bu jullee ba ci digg julli gi muy xàqtaay julli ga day yàqu waaye nag njàpp la moom du yàqu day baamuwaat julli ga waaw moo tax mu ni wala bi qaxqaxatin fi salaatin du caageen xaqtaay ci biir julli su boobaa julli gaa yàqu waaye njàpp la yàquwul wala bi masim raatin ñu ne bu laalee pëyam yàquwul waaye nag mooy mu teg ci loxoom noonu du yàq njàpp waqii ñu ni nag in altafat ndem lunkal na baaraam ba moom ndaw si dugal ko ci pëyam lunkal baaraam bi dugal ko ci kanamu boppam muy pëyam fi muy séyee fa aleyha war na ko alwudoo njàpp waaw kon nag ki nga xam ni tey day euh, am lu muy def ci kanamam ak lu mu mënti doon rek su yemee ci teg loxoom ci kanamam noonu du yàq njàppam waaye su fekkente ni nag dafa lunkal baaraamam mel ni lu ko ci dugal lu ko ci jam mu dugg ci biir su boobaa njàpp la yàqu na waaw su ko defee mbokk yi ah ngeen baa ñu dañu bëgg lañ leen di wax mu leer naññi ngeen xam ko waa su ko defee nag ñu dellusiwaat nag ci yeneeni mbir yoo xam ne ay njariñum lay jàngal la waaw mu mel ni dafa mel ni xadas bu ñu koy wax ak luy sabab xadas mu ni daal ñoom ñaar muctabaraani fil intiqaadi tuhri dañ leen a xalam ñoom ñaar maanaam dañ leen a xalaat moom xadas ak sabab yee ànd ak euh, xadas muy toj ak yi sabab toj neen dafa nañ koo xalaat daal fi naqda ay tuhuri ci yàq làpp loolu dafa yàq sa làpp wane ixtalafa doonte wuute nañu ñoom ñaari ñoo ñëpp fil xaqiqati ci dëgg mu ne isil xadas ndax xadas moom mooy biy toj huwa moom maa yanqudu tuhra mooy liy yàq laab gi ci boppam bi nafsihi waaw ci boppam wa sababu nag liy sabab toj nag huwa moom maa yu addaa mooy loo xam def na ko jooxe ilaa naqdihi jëm ci yàq ga ca toj ga bi waasitatin ci benn intermédiaire xëyrihi bu bokkul ak moom ñu ni comme lan mu ne mis la naw mi lu mel ni ay nelaw xam nga su fekkente ni dañ la wax ne la sanguwaay muy saw day toj njàpp kooku xadas la maanaam ci xadis yi la bokk suñ ne leen nag sababu xadas sababu xadas il faut mu am lu dox ci diggante bi waaw maanaam misla naw mi lu mel ni ay nelaw kon nelaw bu doxee ci diggante bi moo sabab toj googu mën a am moo tax ñu ne la yiy sabab wala lamsil maraati ak laalub jigéen soo laalee jigéen ji yow yaa ko laal kon diggante li toj sa njàpp ak la ko yàq sabab bi mooy laal bi nga fi laal ki nga wërta laal waaw mu ni tamit ak waxam ji mu wax ni wala yantaqidul wudu bi massi duburin laal sa xotutaat du tàkk du yàq sa njàpp walal unsa yee ni du caagee ñaari àndaale yi yaani bihi man massa dubura nafsihi bu fekkente ni nit ki dafa laal euh, xottitaatu boppam kon loo ciy dégg boo laalee nag xottitaatu jàmbur ah day yàq sa njàpp de sa bopp daal lañu wax waaw waaw aw unsa wala sa ñaari àndaale waaye li ma la waxoon ni nga xam moo ànd ak sa zakara bi ñaari kii yooyu donj yooyu sa bos liñ ci jublu mu ne nag wa amaaman massa dubura xayrihi ku koo xam ne dafa laal euh, xottu taati keneen ah aw unsa yeyhi wala ay àndaaleem fa xukmuhu atteem xukmu lamsi mooy attey ku laal in xasada lazata bu ca jubloo bànneex aw wajadaha wala mu am ko ca walaw bila qasdin doonte jublu ko ca woon batalat wudu kama taqaddama moom njàppam dafay yàq nee na comme ni ñu ko waxe woon ci lu jiitu kon nag mbokk yi mu lay wax yépp nee la soo ko laalee du yàq sa njàpp nee na sa yëfi bopp la waaye boo laalee rek yëfi keneen te jublu ca bànneex nee na su boobaa nag dafay yàq njàpp la waaw su ko defee nag mbokk yi il faut ñu bàyyi xel que ni lislaam lépp daf ko wutal àtte lépp yi tamit da koo tënk ci ay point yu am solo loolooy tax bu la joxee atte en général acte bi day valable continuellement masala li ma bëgg a wax mooy li nga xam ni boo ko defee ci sa njàpp mu yàq njàpp li boo sangu woon set muy sangu farata ba mu noppi soo ko defee day yàq sangu farata bi naka noonu itam soo tiimoon ba noppi def yi nga xam ni day yàq njàpp su boobaa noonu lay yàqee tamit tiim ga waaw ah, loolu foog ñu bàyyi ko xel kon lépp luy yàq njàpp daal du fa bàyyi càngaayal farata du fa bàyyi tiim waaw ah, xam naa bu nu ñëwee ci wàllu tiim moom dina am sax luy yàq tiim te du yàq njàpp xanaa ñu baaxee leen ko rek mooy nga am ndox denc ko ci sa watiir wala ci charrette bi wala nga war fas wi takk ci bidon ndox bi fas wi nga bàyyi ko muy for maanaam di lekk ci ñax mi xëy na yow yaa ngi nelaw wala yaa ngi nekk ci yeneen yitte toog ci taatu garab gi far bi nga jógee waxtu wi jot nga bëgg a jàpp pour julli nga xool xool gisatoo fas wa gisatoo ndox ma te foofu amoo beneen ndox foofu nag lislaam danaan la su waxtu wi jotee ba nar a jeex mën ngaa tiim julli ci waxtu wi ndax waxtu dafa foor waaye nag soo demee ba tiim ba kàbbar commencé julli fas wa ngexal wala su dee ci mbaam mi nga ko defoon mbaam ma ngaax ah julli ga nag day yàqu foofu sax dañuy bëgg nga dagg julli ga daw dem jëli ndox ma daldi gaaw jàpp julli moom la mag ñi daan léebe mbaam ŋaax julli yàqu walla fas wa ngexal julli yàqu lañ ca jublu mooy day fekk ni ndox mooma nga war a jàppe ma nga woon ca fas wa ma nga wala ma nga woon ca mbaam ma loolaa feeñ moo tax julli gi day yàqu ndax dañuy bëgg nga dem jël ndox ma dem jàppi daal di julli su ko defee kon mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax a baax yooyu nga xam ni benn bu ci nekk bu la arrivé sa julli maanaam sa njàpp dafay yàqu xam naa ñu jaaraat ci ci lu gaaw rek te mooy alxadas liy toj njàpp was sababu ak liy sabab toj njàpp mu atabaraa ni ñaar yu ñu xalaat lañu yu ñu xalam lañu fi inqidaa fi inqid fi intiqaadi alwudu fi ci lu yàq yàq laab muy làq yàq njàpp waaw mbokk yi nag xam nga arab ak wolof boo ko bëggee jaxase ci benn baat bi <laughs> day xaw a xaw a kii tuuti waaye ngeen jéggal ñu ko rek waaw waaye daal mu'tabaraani dañu xalaat lañu fi intiqaadi ci luy yàq am laab mu ne nag wayn ixtalafa doonte wuute nañu sax fil xaqiqati ci dëgg-dëgg isil xadas ndax xadas muy am toj huwa moom maa yanqudu yanqudu tuhur mooy luy yàq laab bi nafsihi ci boppam waaw was sababu li nga xam nag mooy sabab am toj huwa moom maa yu addi mooy loo xam def na ko jooxe ilaa naqdihi jëm ca yàq ga ca jëm ca toj ga bi waasitatin xayrihi ci benn intermédiaire bu bokkul ak dëggi dëggi mbir ma ñu ne comme la mu ne mislan naw lu mel ni nelaw walam si wala laal almarati jigéen mu ni ak xawluhu waxam ji mu naan wala yantaqidul wudu bi masi duburin njàpp du yàqu ci laal xottu taat wala unsa yéeni du jàgge ñaari àndaale yi yaani li mu ci nam bi ci moom man massa ku laal dubura nafsihi nee na xottu taati boppam aw unsa yeyhi wala boog ñaari àndaale yi boppam waaye nga xam ne yow ci yow la sax loolu la wax ne du yàq njàpp waa maa man massa ku laal nag du ba raxay réex euh, taati keneen aw unsa yeyhi wala ñaari àndaale keneen fa xukmuhu atteem xukmu lamsi mooy attey laal in xasada bu ci jubloo allazata bànneex aw wajadaha wala mu am ko ca walaw bila xasdin donte jubluwu ko ca mu ne kooku batala yàqu na njàpp ma kama taqaddama comme ni ñu ko waxe woo waaye itamit mu teg ca lépp loo xam ne mbokk yi sa yëfi bopp la tamit su génnee ci yow day yàq sa njàpp lépp loo xam ne sa yëfi bopp la muy génn bu génnee ci yow dafay yàq sa njàpp ci palaas yi nga xam ne mooy palaas sobe yi moo xam dangaa tuur ndox muy saw sa njàpp day yàqu wala nga génne masiyu waxoon naa leen masiyu ginnaaw euh, ginnaaw bawlu sax euh, wët yu moo ci topp waaw masiyu soog a ñëw yooyu yëpp bu génnee ci yow day yàq sa njàpp waxoon naa leen masiyu ndox la boo xam ni xaw naa far tuuti rek dafa mel ni mooy liquide bi nga xam ni su nit ki dee yëg boppam maanaam bu fekkente ni dafa am bànneex ba zakaraam jóg ndox boobu di masiyu mooy liquide bi nga xam ne moo koy yëkkati su reesee rek bu zakar bi reesee rek da gis ndox mi génn loolu bu la fekkul nga gaaw dem ci toilette wala yooyu mën naa sotteeku sax ci sa yére ñu ni wat yu nag moom boo sawee ba pare boo tuuree ndox ba pare boo tuugee ab diir ci lay génn moom moo ndox saw bi ñooy nuroo mais am na tuuti ratax ratax tuuti rek la waaw moom nag ginnaaw boo sayee ba noppi toog ay lu mat minutes li ñuy tudde ferlu boo ferloo ci lay génn loola nag su génnee moom tamit day yàq sa njàpp bu fekkee tamit nit ki dafa ngelawal ngelawal boobu dafay yàq sa njàpp bu fekkee aussi nit ki dafa dem toilette dafa dem douche dem douche boobu day yàq njàppam bu fekkente ni nag ci keneen la jóge foofu tam du yàq sa njàpp <laughs> ñaari sew solo mbokk yi moo tax ma mujjee ko li nekk ci say cër yépp soo ko laalee bu dul sa zakkara beneen boo ci laal du yàq sa njàpp na fekk nag muy say cëru bopp bu dul sa zakkara rek te sa zakkara sax boo ko laalee ci ginnaaw loxo bi ci der bu ñuul bi du yàq njàpp fi nga koy laal mu yàqu mooy der bu xonq bi te mooy lii ténq loxo bi ak baaraam yi ak boori baaraam yi lu ci xonq rek su laalee zakara bi maanaam sa zakara fi ngay seeyee sa njàpp yàqu na bu loolu nag boo laalee lu xonq li ak sa àndaal a ñaari àndaale yi wala xotutaat yooyu yëpp du yàq sa njàpp waaw waaye boo ko laalee ci keneen dañuy xool boo ci jubloo bànneex mbaa nga am ca bànneex sa njàpp yàqu na donte jubloo ko ci sax te am ko ci sa njàpp day yàqu léegi nag yi nga xam ne day génn ci keneen maanaam keneen ku tuur ndox fee maanaam ku saw fële wala mu dem toilette dem douche yow nga ñëw joggi ca dem douche donte sa tànki neen nga ko joggee du yàq sa njàpp danga koy raxas rek parce que du sa du sa yos yosu keneen la boo taxawoo nit ki di tolol di saw gisu la walla yow gisoo ko nga romb saw mi tis la su boobaa dañuy bëgg fa mu la tis foofu ngay raxas moom ngay dindi waaye du yàq sa njàpp mu wax la itam ni la su fekkente ne dangaa laal pëyum xale bu jigéen bu ndaw ku majeuragul loolu du yàq njàpp moo xam danga ko doon wis wala yu mel noonu ku wàccu itam du yàq njàpp li le lekk yàpp giléem gu góor xam nu koy waxee jusur bëri na ci ay moom ay werante day yàq njàpp ñii ni déedéet du ko yàq moo tax mu ne wala bi akli laxmi jusurin du caag parce que dafa am xeet yoo xam ne dañu ko daan xaraamal ci seen bopp sax am ñoo xam ne dañu ko doon sib ba lislaam bi mu ñëwee ñu yaakaar ne loola ku ko lekk ba tey day yàq sa njàpp wala dalay indil ay problème sharia nee na déedéet surtout ci ngiru imam malik boo lekkee yàpp boobu du yàq sa njàpp xijaama muy eh, eh, nàmpatal du yàq njàpp xas da muy gàjj du yàq njàpp waaye yëpp boo demee ci bunt ku mel ni koor ak yooyu day yàq koor ga su fekkente ni mënoon nga ko éviter ba dog jot soo ko tey def ko day yàq sa koor waaye soo ko tey wala nga nar a loru bu boobaa sax dañ la koy may wala bi qaxqaxatin fi salaati du caageen ngay julli ba ci digg bi nga xaqtaay du yàq njàpp du euh, waaw waaye day yàq julli ga nag wala bi masimraati farjaha jigéen su laalee pëyum du yàq njàpp ma waaye waqiila nee nañu in altafat bu lënkalee baaraam ba dugal ko ci fa aleha war na ko al wudu njàpp léegi nag wallaahu yàlla aalamu moo gën a xam ci lii ñuy wax mbokk yi ñu ngi ñuy xamal ni ñu amoon ci wàllu waxtu jeex na ngeen àndoon ceeg seen mbokk seen xarit Oustaz Gora Diop fii ci seen rajo Rewmi FM 97.5 wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu